waaw loolee tamit ci sëñ bi ci dafa am ñaari fan ba ci ñetti fan am na koo xamante ne kii dafa am faru rab faru rab ak coro rab bokkut ñaar yëpp am nañ ci ak secret dañ koy dindi ci kàttun yàlla asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp alors comme d'habitude waa lu xew TV ñoo ñëwaat di leen defal beneen analyse ci seen série maîtresse d'un homme marié gannaaw tey bu ñu seetaanee épisode 19 ba pare dañ ci noté quelques point ñu bëggoon ko partager ak yéen avant cela nag on tenait à préciser une chose mooy que numéro bii nekk sunu service commercial di 77 666 56 70 numéro waa lu xew TV la du numéro waa Marodi TV du numéro benn acteur wala actrice bu nekk ci série maîtresse d'un homme marié suñ koy préciser nag c'est parce que dafa bëri ñu ñuy woo yaakaar na ñun ñooy jouer série bi wala ñun la waa Marodi TV donc d'habitude ñu lay woo bu ñu la woowee dañuy commencer di wax comme si c'était ko yow yaay tourner série bi donc ñun ñu jàpp ni tegginewul nit woo rawatina magum jëm woo la commencer di wax nga koy dagg moo tax ñun ku woote d'habitude dañ lay bàyyi déglu la ba pare bëri na ñoo xamante ni nag wax nañ leen carrément que lii du numéro waa Marodi TV mais am na ay magum jëmm bu ñu wootee ba pare dañuy am kersa ñun pour di leen wax ni lii la wala lee la léegi dañu bëggoon a profité ci vidéo yi ñuy def ñu wax ko ni numéro bi ngeen di gis du numéro Marodi TV du numéro kenn kuy joué ci série Maîtresse d'un homme marié numéro waa Lu Xew TV la maanaam ñi nga xam te ni si ñoom ñooy def analyse yi te analyse yu ñuy def. sunu point de vue personnel la te liñ ci jublu mooy jàllale ay message mën ci yeete xëy na sax yéen ñi dañu déglu seen xam-xam moo gën a màcc sunu bos fuuf mais peut-être que vidéo yi ñuy def ñàkkul ni am na au moins kenn koo xamante ne su ko déggee dina ko yee ci benn côté bi ñun loolu lañ ci jublu. ñi nga xamante ni nag woo nañ ñu wala message nañ ñu di rafetlu analyse yi ñuy def ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni tamit bépp xalaat bu ngeen ci am. pour lii ñuy def mu gën a jaar ci yoon gën a jëm ci kanam ba ñëpp mën ci jariñu ñu ngi tataan xalaat yépp ubbil nañ ñëpp suñuy bunt kenn ku ne côté boo ci mun jàppee nga yaakaar ne buñ ko defee woon noonu dina gën a jàll dina gën a am solo ñu ngi lay wax ni la bul hésiter contacter ñu wax ñu ni nga xam te ni jàpp nga ni moo gën a jaar yoon wala nga def ko ci commentaire incha allah dinañ ko liir parce que ñun rek suñuy xel doyul ndax li ñuy faral lu kenn mën ñaara ko ko dàq donc ñun ñëpp bu ñu boolee suñuy xalaat xëy na lii ñuy def nii dina gën a jaar ci yoon nit ñi mën ci gën a jariñu ci kàttanu borom bi. donc ñi ngi tuub di jégalu bu baax ci ñi nga xamante ni yaakaaroon nañ ni numéro bii numéro Marodi TV la wala numéro ñiy joué série bi ñu leen di préciser que numéro bi uniquement numéro Waalu Xew TV la te numéro bi li tax ñu bàyyi ko fi mooy. képp koo xamante ni si da nga bëgg publicité à travers YouTube nga am looy jaay wala lu mu mën di doon loo bëgg a jàllale bëgg ñëpp gis ko pour boo ñu contacter ñu mën ci liggéey ak yow. ñu bëgg aussi wàllum lu jëm ci montage ñu am anniversaire mariage bëgg ci montage ay photo wala ay vidéo ak ñi nga xamante ni aussi dañu am seen histoire yu ñu dund bëggoon ko partager ak ñun soit en privé wala ñu publier ko aussi ça dépend ci bu leen gënal loolu moo waraloon ñu bàyyi fi numéro bi. donc loolu benn point la woon rek buñ nii nañ ko leeral tey avant ñuy commencer def suñu vidéo donc comme niñ leen ko waxee ci début bi video bi ñu ngi koy def ci série bii di maîtresse d'un noom marié tey dañu gis Jalika bi mu jëlee décision carrément que ni day génn kër gi Biram daf ko def ay menaces te loolu dafa bëri même dañuy gis entre copain ak copine ñaar ñoo xam dañuy génn rek kenn ki bàyyi moroom mi keneen ki di ko menacer te menace dafa doon lu yéeme. que ça soit mu nekk entre jëkkër ak jabar copain copine wala mu nekk sa moroom sax boo ko menacé tey fii ak ay fan lu ko mën di dal yow yoon mën na la teg loxo parce que bëri na fi ñoo xamante ne sii menace képp lañ def nit dem leneen dal ko loo xamante ni jotewul ak ñoom dara mais ñu fàttaliku ni defoon na menace rek ñu ñëw teg ko loxo mu tëdd ay atu prison yoo xamante ne sii deful dara donc menace dafa doon loo xamante ni dafa doy waar. te bu ngeen fàttalikoo yéen ñi nga xam ne ni jot ngeen koo seetaan am na benn série sénégalaise bu ñu doon woowee tund wund Badara bi muy menacé copinam bi juste parce que dañ ko jëloon may ko keneen ko tudd Dramane donc par la suite copine bi ak Dramane boobu ànd ay agresseur agressé leen ba far ray Dramane affaire bi mu yeggee ci loxo loxoy yoon bi ñu enquêté xale bu jigéen bi dafa wax que ni Badara rek moom moo ko defoon ay menaces ñu jël ko téye ko ci kaso bi loo xam ni deful dara menace foofu la mën a yóbbu nit. donc juste dañu profité ci séquence boobu noonu pour jàllale ci message boobu noonu menace dafa bëri léegi te dafa doon loo xam ni dafa yéeme dafa doy waar parce que lu ne mën na ci fekk loo xam ni yaa def wala nga ñàkk def alors ñu bàyyi xel bu baax a baax ci lool beneen point bi ci topp waxoon nañ ci keroog muy que cadre séparation boo tàggoo ak sa jëkkër li nga xam te ni si moo mën dal say njaboot gis nañ ni biram nanguwul Amina dem te Amina comme ni ko yaayam waxee moom rek la xamoon depuis bi mu juddoo ba léegi moom lay fanaanal. imaginel première guddi bi nga xam te ne Naarta Fanaan ak Yaaya nan la war a mel ci xale bi day métti trop te xale bi bu fekkente ne biram daf ko continuer téye mu màgg noonu saa muy gis yaayam ci wetam amuuru yaay dëgg-dëgg da koy manqué loolu moo waral loon sunu vidéo passé ñu doon wax que képp koo xam te yaa ngi tas sa sëy nga suuraale sa njaboot te loo mën a def ba mën a toog muñ ci kaw soo ko mënee parce que sëy day am tàggoo day am mais loo mën a muñ sóoraale ci njaboot bi boo ko defee mooy li gën parce que comme ni ma ko waxee woon la dernière fois amoon mon avis lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën te boo xoolee aussi ci beneen doom bi Malick ñu ni dafa jooyal Amina ba nelaw kon vous voyez mag ak raq bu ñu nekkee un bon jour ñu bëgg leen a séparer day miti donc yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci bu mu sëy décision bu ngeen nar di jël ëllëg suuraale leen seen njaboot fan la ñuy mujj parce que loolu day joué ci xale yi bu baax a baax beneen point bi mooy gis nañ yaayu Jalika franchement ni mu doxale mu nekk rôlu yaay dëgg parce que nee na ko mu toog ba dal mu jéem a xoolaat nu mu waxtaanee ak biram pour mu delluwaat ci see bi loolu mooy rôlu kilifa dëgg naam sax xëy na peut-être umpale na la Jalika doon dund ca kër ga mais kilifa noonu la war a doxale point bi nga xam ne nag moom la ñuy mujjee mooy diggante Marème ak Cheikh gis ngeen Marème li mu wax mu ni Cheikh depuis loolu woowu ko yónneewu fa demu fa moom pour l'instant dafa jàpp que ni Cheikh bëgg ko woon daf koy fowee rek peut-être mën na nekk dëgg que ni bëgg ko woon peut-être aussi mën na ko bëgg mais juste message bi ñu bëggoon a foofu mooy tey képp koo xam ni yaa ngi dugg ci nit na doon lu wóor surtout ñi nga xamante ni seen am nañ soxna ba pare la plupart uniquement pour fo moo leen di tax a jóg parce que man mënuma comprendre tey nga am soxna ba ko ca kër ga jël beneen jigéen di ànd ak moom di dem resto di ànd ak moom di baali mais xaalis bi ngay dépensé foofu pourquoi pas nga jox ko sa soxna mu dugg ci waañ bi togg reer bu neex yow ak say njaboot ngeen togg reer en famille mu neex soo bëggee dem resto jëlal sa soxna nga yóbbu ko resto parce que lépp loo def ci sa soxna lépp loo def ci sa njaboot yàqoo ko donc nga def ko fi nga xam ne fa nga ko war a def am ci yàlla moo gën nga koy def ci àll bi di ci am ay bàkkaar donc yéen jigéen ñi yéen la ñuy waxal xool leen bu baax fu ngeen teg seen tànk am na ñoo xam te ni nag fulla moo leen di tax a jóg mais comme ni ñu koy waxee d'habitude ñu bon ñi ñoo yàq ñu baax ñi ba tax na dootoo mën a xàmmee mais ngeen jël seen temps xool bu baax fu ngeen teg seen tànk avant ngeen di engagé ci dara parce que mën ngeen jël dugg ba ci biir di door di réccu fekk lépp wees na alors tey vidéo boobu lañu indiloon di dellu encore une fois di leen préciser que numéro bii nii du numéro waa Marodi TV du numéro benn acteur bu nekk ci seeri maîtresse d'un homme marié numéro waa lu xew TV la li waral nag ñu bàyyi ko fi mooy pour ñi nga xam te ne dañoo bëgg publicité wala ñi nga xam ne si dañu bëgg montage wala ñi nga xamante ni aussi dañu bëgg jàllale seeni histoire donc ñi ngi dellu di tuubaat encore une fois di jégalu bu baax a baax wax ji ñu fi wax képp koo xam ni laal na la ñu ngi ñëw ba ci di la jéggalu lu fi jub nag ngeen xam ni ndimbalu borom bi la lu dëng ngeen xam ni ci man mii di wax la ndax nit matul ñu ngi tuubaat bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bi yëpp di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah merci à tout le monde. wàllu sàngara bi ci yàlla maa képp koo xamante ni kii li nga ma ko mu bëgg a bàyyi sàngara keroog bu fi xëysee ba balaa moo jóge ci biir néeg bi mu bàyyi sàngara ci kattanu yàlla ci amul gannaaw suba amul suba tey tey tey tey tey boo ko indee tey tey tey mu bàyyi sàngara waaw loolee tamit ci sëñ bi ci dafa am ñaari fan ba ci ñetti fan am na koo xamante ne kii dafa am faru rab faru rab ak coro rab bokkut ñaar yëpp am nañ ci secret dañ koy dindi ci kattanu yàlla